une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu <clears throat> ni ko sëñ Abdou Lahad waxee ci turu kilifa gi yoon wi di Cheikh Mouhamadul Mountakha te jiital ci nuyu bi kilifa yu baax yi fi teew sëriñ Abdoul Aziz Abo ak mboolem mbokkam yi fi bokk nekkal yépp ak sëriñ Alxaaji Njaay mi nga xam ne moo fi nekkal meerub dëkk bi ak mboolem buñ tuddee ñaar ñooñu tudd nañ kilifa yi diine yeeg kilifa yi àdduna yi ak mboolem boroom xam-xam yi fi teew yëpp di sant sëriñ Abdul Hakim bu baax ci taxawaay yu am solo yi mu taxaw ci daara ju am solo ji mu taxawal te tàmbali ba ba fi mu ne nii lu ci bari nañu ko laaral ñu ciy waxtaan ba bi muy dem di gaaral liggéey bi sëriñ sëriñ Muntaqa mu xam ne ci liggéeyam la bokk ndax sëñ Mountakha dafa ne woon wet gi mu gën a bëgg a liggéeyale sëriñ bi mooy wetu xam-xam mooy wetu xam-xam kon képp ku jóg di ko jàpp ci liggéey boobu rek da koy jàppee mu bokk ci biiru liggéeyam moo tax ba mu ko ko gaaralee yoon wu jëkk da koo boo rek Cheikh Amadou Badawi moom sëriñ Fallou mu teg liggéeyu xam-xam ci loxoom keroog ba mu fay dem man mii la àndal Cheikh Amadou Badawi ñu leeral ko liggéey bi lépp kon noo ngi sant mbokk yëpp ci taxawaay bi waaye di leen di leen soññ nag ci ñu gën koo jàppale ci liggéey bi ndax alquran la ñu fi dégg moom la fi jàng moom lañu ñu fiy jàngale te yonent bi nee woon na ki gën ci jullit ñi gën ci yéen mooy kii jàng alquran di ko jàngale sëñ bi jaaraat na ca ca téere ba wa afdalu nnaasi alladi taallama qurana rabbihi wa gayran allama te soññoon na mbooleem waajur yi yéen a ngi ci waaye nangu leen ci gën a soññ waajur yi yëpp ñuy gën a yóbbu seeni doom ci daara ju mel ne daara sëriñ Abdul Hakim ji ak fépp fuñ mën a jànge alxuraan waxoon na ci yiwu rëy woon wi nekk ci yóbbu sa doom mu jàngi na woon na waxaytuma yu basmilu sabiyu fii maktabin yaktub lahu al aliyu wali walidayhi wali man yuallimu baraatan min naarihi fal taalamu nee na xale bi saabu bu tàmbalee jàng ba ne baasin miim rek sunu borom da koy bindal moom xale bi ak ay way juram ak ak ay way juram ak ñi koy jàng ki koy jàngal lam leen di bindal mooy ak set wicc ci sawara fa saasa kon fa saasa bu gone gi tàmbalee jàng rek taxe na ay way juram taxe nañu sëriñ bi koy jàngal taxe na kon loolu doy na sëkk ci soññee ci wayjur yi gën a di yóbbu seeni doom ci ñuy jàngi alxuraan di jàngi diine diine itam lu am solo la yonente bi ne woon na ci xadiisu abu sufyan man yuridillahu bihi xayran man yuridillahu bihi xayran yufaqihu fi diin képp ku yàlla bëgg ci moom lu baax dana ko déggloo diine dana ko xër ci mu jàng diine ba xam ko sëñ Tuubaa lam lam lam lam soññee ci xam-xam soñ ci gone yi gis nga téere ba nga xam ne gannaaw géej gi sax la ko bind te sa wutu sixaar ñu bari bu ñuy wax sëntu Tuubaa li di ci xam-xam dañuy def dañu naan booba di ko layale booba may yi ñëwagut ak booba àggagul àggagul barab sangam waaye liggéey na ci géej gi ba may yi ñëw ba gànnaar mu taalif tasawudu sixaar di ca soññi ndaw ñi ca ñu jàngi yaa ayyuha sibyaanu la tashtaxilu anil huda wa bil ulum mishtaxilu yéen ndaw ñi na ngeen góorlu ci jub seen yittanay ak jub seen yittanay xam-xam kon képp ku jàpp na yoon wi du yoonu xam-xam loolu déggoo yoon wi sëñ Tuubaa demoon na ba ne pexe seytaan rekk la wa min makaa'idi llaa'ini l-mujrimi saddul muridiina ani taallumi nee na bokk na ci pexe seytaane dëddloo gi muy dëddloo murid yi xam-xam na ne euh, xam-xam bokkul ci yoon wi te naka jekk xam-xam ci yoon wi la mas a bokk sëñ Tuubaa ba muy sos yoonu murit ci xam-xam rek la ko sos ñaar ñi ko yoraloon ay daaraam Seex Ibra Faati mi yoroon daaray xam-xam ja sëñ Abdourahman Lo mi yoroon daaray alquran ji ñoom la ma sa wax na yéen ñaar ñii dama leen a munta ñàkk keroog ba muy jóge Touba di toxu Mbàkke Baari gi nga xam ne nawoon na da koo sanc ngir jàng ak jàngale ñoom ñaar rek la yóbbaale ak seeni donga sëñ ma la mi nettali na ko ca Irwa ne woon na ñoom ñaar dong la yóbbaale bi xisbayhima ak seeni donga loolu la muy wane mooy sëñ Tuubaa léppam lim taxawal lépp ci xam-xam la ko taxawalee ne woon na ci xam-xam lay jihaadi jihaad mooy ngànnaay jëli ngànnaay di xeex ba taxawal la ngay taxawal am nañu ko daa defee ci ngànnaay yi ñu xam waaye sëñ Tuubaa ne woon na ngànnaay yi muy jihaadi mooy xam-xam kon lim taxawal lépp ci xam-xam la ko taxawal te yoonu murit moom la taxawal inni ujaahidu bil ulumi wa bit tuqaa kon yoonu murit bu taxawee ci xam-xam la taxawee kon ku jàpp ne xam-xam bokku ci xamoo xamoo yoon wi kon nag ñoo ngi ñoo ngi gën a sant sëñ Abdul Hakim di ko gën a soññ bu baax ci taxawaay di soññ way jur yeeg mbokk yëpp ñu gën koo ñu gën koo jàppale ndax jàppale ko rek moo jàppale yoon wi moo jàppale lislaam ndax lislaam diine xam-xam la saar wi jëkk a wàcc ci alquran mooy iqra jàngal te sunu borom bam digalee malaaka yi ñu si ci aadam lay wa mu joxe ngir wana ne aadama yayoon a war ma ji mooy layu xam-xam da ko xamal lu malaaka yi xamut ne aadama jàngal leen ba mu leen jàngalee ñu soog a nangu ne yayoon a bi ko yàlla jox kon lay woowu la sunu boroom joxe joxeel aadama kon lépp xam-xam la ñoo ngi sant ñi ci féete ci wàlluk àdduna ci wàllum bi ndax xam-xam moom lépp rek xam-xam la xam-xam bu am jariñ moom mooy lépp lu nit mën a jariñoo rek la ca jiit na mooy xam-xamu diine bi koy bi koy maarala digganteem ak boromam waaye lépp luñ mën a jëriñu ci àdduna rek ci biir xam-xam bu am njariñ lay dugg naafeewal almi gi sëñ Tuubaa di jàng di di ñaan di ñaan sunu boroom mu may ko xam-xam bu am njariñ kon noo ngi ci gën a sonn gën a soñ ñëpp di sant sëñ Abdul bu baax di ñaan yàlla defal ko taw tawfiq te barkeel liggéey bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi ñu ngi di leen baalu xaq di leen baalu xaq di jiital ci nuyoo bi Mawlana Cheikh Mountakha xalifatul am di ñaan yàlla yàggal ko fi loolu ci wéral ko moom mbooleem njobootu Serigne Touba gépp waaye di nuyu it Serigne Moustapha Mbacke nga xam ne mooy xalifaab Cheikh Mamadou Lamine di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool ak mbooleem njabootu Cheikh Modou Lamine gépp waaye di nuyu sëriñ Assis Abo sama sëriñ sama xarit yi nekk nga xam ne jataay bi tey mën na ne moo ko jiite ak mbooleem ñi nga xam ne ay rakkam la ñoo te ñoom ñëpp ñu teew fi ñu ngi nuyu ñëpp bàyyiwuñu kenn di sant ñëpp bu baax di leen gërëm bu baax ñu ñëw fi nag ci taw tay ci turu maire de la ville de Touba muy Serigne Abdou Lahad Ka boole man ak Serigne Mbacke soxna loo di doom ci Serigne Cheikh mu Daaru Rahman di adjoint maire ci commune Touba moom itam monsieur le maire Abdou Lahad Ka boole moo war na wax ne moom moo jiite délégation bi muy sëriñ Mbacke ànd ko ak man ngir ñu ñëw teewal ko fii kàddu gi moom moo ko waroon a jël ndax moo jiite délégation bi waaye moo ma ko joxaat ne naa wax ci turam wax ci turu loolu moo waral tey jii ma jëlaat kàddu di leen xamal ne monsieur le maire moo nu fi yebal sëriñ bi ginnaaw bi nga jokkoo ak moom ba wax ko liggéey bi nga xam ne yaa ngi koy liggéey fii ca xam ne liggéey bi liggéeyu Serigne Touba la walla liggéey bi liggéeyu meeru Touba kon laaj na maire bi ñëw fi taxaw fi yabal fi délégation ñu ñëw teewe sa bis bii loolu moo waral maire ne naa jóg ànd ak sëñ Mbàkke bi nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu diine moom lañ ko dénk ci commune bi ak man mi nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu kàddu commune bi man lañ ko jox ngir ñu ñëw teewal ko fii ci bis bii di la xamal ne maire nee na mi ngi lay sant bu baax di la gërëm ci bu baax ndax dégg na jataay bi kon sëriñ bi ñu ngi nuyu sëriñ am sa mu sëñ Abdou Lahad mi nga xam ne léegi agsi na léegi ànd ak sëñ Fallou Bousso moom sëñ Ousmane Bousso moom sëñ fallu ñu fekkee jataay bi kon bi ñu leen nuyoo ba noppi rek ñu àggale kàddu yi jóge woon ci mairie bi jóge ci monsieur le maire Abdou Lahad jëm ci sëriñ bi nga xam ne moo amal bis bii ni ma ko waxee rek dafa mel ne kon mu mel ne ginnaaw bi ñu dalalee sëriñ am sa ba noppi rek ñu ko continuer kàddu yi nga xam ne moom lañ doon jottali ci turu commune de Touba. Euh, kon ni ma ko waxee rek sëriñ bi mi ngi lay sant bu baax monsieur le maire ginnaaw bi ngeen jokkoo nga xamal ko liggéey bii mu jàpp ne liggéey la boo xam ne ñoom nga ko defal dëkk bi nga ko defal ndax sàkku xam-xam ak suñuy sàkkoo xam-xam moom képp koo xam ne taxaw na ca bëgg naa defal ndaw ñi ca defal ndaw ñi moo la am solo. ca mooy li nga xam ne sa waajur mu Muntaxa ci la nekk ni la ko représentant bi waxee léegi moom bëgg na fépp foo xam ne nii ndaw ñi nekk nañ fa nañ fexe ba jàng kon nag tey boo daa taxawalee lu toll nii amal bis bii invité mairie Touba ne nañ mu ñëw xool jëf ji ngay def fii invité autorité yi nga xam ne ñu ngi leen di nuyu au passage nuyu itam ñi ma fi gis ci enseignants yi nga xam ne ay jàngalekat lañ ca neef yi ñoom ñëpp ma di leen nuyu ci turu mairie bi kon sëriñ bi ñu xamal la nag incha allah mairie bi fas yéene na ñëw jàppale la ci liggéey bi commission bi nga xam ne moo yor éducation incha allah li monsieur le maire wax mooy danañ leen fi yebal ñu ñëw xool fi nga xam ne fi nga toll ñu xool fi nga xam ne fi la ñu mën a mën a jàppe ci liggéey bi ñu jàppale la ci ndax mairie bi moom jàppale bi liggéey weesuut lu may nga manqué classe ñu fexe laa tabaxal kalaas wala nga manqué ay banc yu ñu jàngee ñu fa yéene laa wutal ay banc loolu nga xam ne ni lañuy ñuy jàppalee école yëpp rawatina école bii kon incha allah fas yéene nañ jàppale la bu ñu yabalee commission éducation ñu ñëw fi ba xool ko ba saytu ko incha allah li nga xam ne war na ci mairie bi mu war ko cee jàppale dana fexe ba jàppaleel ko ndax yow kot ku la jàppale nga dem ku la jàppalewul nga dem ndax ku deflu lu mel nii kooku boo ñëwee jàppale ko da ngay dolli waaye soo ko jàppalewul it mu demal boppam kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm bu baax ci biir école bi nag li ñu ci gën a ñor mooy formation bi nga xam ne dina am ci biir ce loolu mooy li am njariñ ndax jàng dem rek dëgg la baax na waaye formation bi ba am bu ëllëgee loo mën a jàpp ba mën a liggéey loolu dara ëpp ko solo te gis nañ ne bokk na ci sa programme nga war koo def kon nag ñu ngi la ci gën a soññ fas yéene la cee jàppale bu baax a baax di la sant di la encouragé di la gërëm di la xamal ne maire bi daal taxaw na ngir jàppale la ci waxtu woo wet goo ko bëggee rek incha allah ceeñ man faa liggéey ci man di fa jàppale école yi danañ fexe ba jàppale la fa ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm bu baax di gërëm nag élèves yi fi nekk di gërëm parents d'élèves yi ak mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi jàpp ci biir école bi ñëpp di sant bu baax di gërëm bu baax di nuyu itam Cheikh Mamadou faadal moom Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne fekk nañ ko fi moom itam mu wax mu Cheikh Mamadou Fadal mu nekk fi moom itam di ku bëgg lislaam bëgg xam-xam moom itam ba tax mu teewee jël si bi kon suñ ko fekkee war nañ ko jottaliwaale suñu nuyoo ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu àq ñëpp di la xamal ne daal mairie bu Touba moom incha allah fas yéene na dugal loxoom ci école bii ba nga xam ne dugal na ci loxoom loolu la mu te Abdoul Ka waxoon ne bu ñu ñëwee nañ la ko jottalil ndax bëgg na lool ci yëgal gi nga ko yëgal bëgg na lool ci jokkoo gi ngeen jokkoo ba nga wax ko li am fii lépp moo waral tey mu amal délégation boobu ngir ñu ñëw teewal la ci bis bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu monsieur et madame membre de la comité éducative monsieur et madame les parents d'élèves personnes administratives et pédagogiques monsieur les autorités religieuses et coutumières représenté par Serigne Abo Bachir Mbake. Chers invités, c'est avec un plaisir et intérêt pour tout particulier que je prends la parole devant cette auguste, devant cette auguste assemblée. Pour tout d'abord, vous remercier au nom du promoteur et déclarant responsable, je vous nommer Serigne Abdou Hakim Mbake. À qui J'adresse toutes mes félicitations et mes encouragements d'avoir rehaussé de votre présence la cérémonie d'inauguration du centre de formation professionnelle et technique qui nous réunit aujourd'hui. En ma qualité de responsable du centre, un département du groupe scolaire Cheikh Mohamedou Lamine Barambake, je voudrais, si vous me le permettez, profiter de cette cérémonie qui m'est offerte pour vous faire une succincte présentation du CFP ainsi que ses filières de la formation. Et vous réitérez notre engagement à faire de l'établissement un centre d'excellence. C'est aussi le moment et le lieu pour moi de solliciter des autorités et partenaires ici présents dans le cadre d'une franche collaboration, un soutien un appui et un, et un accompagnement constant pour nous permettre d'atteindre les objectifs qui nous ont fixés. Aux apprenants, nous nous engageons à vous encadrer tout en érigeant en vous culte de l'excellence et dans la discipline. Aux populations de Touba et ailleurs, nous ouvrons nos portes pour accueillir vos enfants dans un cadre propice aux enseignements apprentissages. Je vous remercie tous et vos qualités rang et grade de votre aimable attention. mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di nuyu ki nga xamante ni moo fi représenté monsieur le maire Abdou Lahad di nuyu ki fi représenté monsieur le préfet di nuyu di nuyu le directeur de l' apprentissage monsieur Modika mi def déplacement ngir ñëw fekkee inauguration bi di nuyu bu baax le directeur de l' emploi ak moom mi nga xam ne yónnee na fi représentant di nuyu bu baax la directrice du fonds de financement de la formation professionnelle et technique représentée par monsieur Aliou Seck qui est responsable pôle centre du trois fpt di nuyu bu baax monsieur l' inspecteur d' académie de Diourbel ak monsieur Lief de Mbacké di nuyu bu baax tamit ñi nga xamante ni ñoom lañ séqal jàng mi ak jàngale bi muy jàngalekat yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk di jàngale di nuyu bu baax tamit suñu collègue bi nga xamante ni moom moo jiite enseignement apprentissage enseignement euh, enseignement général muy monsieur muy monsieur Thioub du nuyu bu baax tamit kilifa diine yi nga xamante ni ñoo fi teew ak kilifa aada yi ki ngeen représenté di Serigne Abo Bachir Mbacke ñuy am ak cant ak cant gu ñuy jëlee ci turu jàngalekat yëpp ci turu ñi nga xam ne dañoo seq centre de formation professionnelle bi yëpp di ko jagleel sëriñ Abdou Akim Mbacké may ñaan yéen ñëpp ngeen tàccul ma ko bu baax a baax a baax ci engagement ak fit ak détermination bi nga xamante ni moom la jël ngir taxawal li nga xamante ni moom la ñuy wax centre de formation professionnelle centre bi nag ñëw ci fi nga xamante ni fekk si ab complexe ñu naan ko complexe Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké complexe bi monsieur bu jiite ko ak sëñ Abdou Hakim ñu ñëw tabax ci biir complexe bi centre de formation professionnelle ngir forme ay ndawi Touba ngir forme ay jeunes yi Touba ngir former waa gox bi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk ci wàllu filière yi nga xamante ni dinaa ko te léegi. te bu ñu génnee tableau bi léegi muy tableau intégral bi di ngeen gis filière yi nga xamante moom lañ fiy jàngale bokk na ci informatique bokk na ci pâtisserie. bokk na ci restauration bokk na ci les métiers du BTP muy électricité ak euh, euh, at at carrelage ak yeneen métiers yi nga xam ne at couturier modéliste yooyu yëpp nekk ay métiers yoo xamante ni fas yéene nañ ko fee former fii ci centre bi grâce à l' ak détermination wu sëñ Abdou Akim Mbacké moom mi nga xam ne moom moo ko fi taxawal ak ay partenaire di wax tamit ci turam ne ñi ngi sant bu baax a baax suñu ay partenaires ñi mel ni 3FPT direction de l' emploi direction de la formation professionnelle ak direction bi nga xamante ni moom mooy direction moom mooy fonds de financement de la formation professionnelle et technique. di sant bu baax a baax kilifa diine yi nga xamante ni ñoo ñu yaatal ci dëkk bi di sant ak di ñaanal sëriñ Mouhamadou Moutala Mbacke mu yàgg fi lool te wér moom mi nga xamante ni moom moo jël. am njàng ak njàngale daan foofu la teg tànkam ndax bëgg ndawi Touba ak ndawi Sénégal ñëpp jàng ci biir njàng mi nag moom mu boole ci centre de formation professionnelle ndax complexe bi nga xamante ni moom la tabax muy ci biir université bi boo leen xoolee def na fa centre de formation professionnelle bu mag a mag a mag a mag sëñ ma la bàyyi ci liggéey boobu ngay wéet dinaa ñëw tabaxaat beneen bu mel noonu fii ci guy mbind ngir ndaw ñi nga xamante ni ñoo jotewul foofu ñu tàmbale fii ci centre de formation professionnelle bu baax a baax kon nag kaddu yi fa laa koy yemale ndax am na autorité yoo xam ne dañoo jugee ba Dakar ñëw ngi tub bu baax a baax a baax di leen jaajëfal ci teewaay bi di leen wax ni jël nañ engagement ak jàngalekat yi nga xam ne ñoom lañ ko seqal ngir képp ku fi indi sa doom dinañ ko former dinañ ko former ci métier bi nga xam ne moom la bëgg former ko ba mu man ko ba mu man métier bi ba pare bu noppee métier bi dina ko jariñ grâce ak ay suñu partenaire yi nga xam ne ñoom lañ ci nar a àndal jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul uqdatan lisan yafqahu qawli maa ngi jël kaddu ci turu madame la ministre madame Mariama Sarr mi nga xam ni mooy ministre formation professionnelle apprentissage ak insertion mu yebal ñu ma ànd ak délégation bi sëriñ Aliou Seck représenté directrice générale 3FPT muy fonds boo xam ni moom mooy yore lépp loo xam dafa jëm ci financement formation ànd ak sëriñ Modou Niang nga xam ni moo représenté directrice de la formation professionnelle moom it nekk chef de division formation privée ce ministère la ànd ak aussi madame Dramé nga xam ni mooy euh, directrice CFP bu Touba parce que aussi ci biir ministère bi la bokk ñëw nag indi kaddu soxna si mi soxna Mariama Sarr soxna si waxoon na bu ñëwee ñu jël sunu nuyoo teg ko ci sëriñ Abou Bachir nga xam ne moo fi jóge léegi mu tegal ko ci sëriñ Mountakha Bachir Mbacké yàlla na ko suñu borom bàyyi ko fi lool ànd ak yàgg wér mu jox ko nuyoom ak ziyaaram ci ñaari fan ndax moom doom la ci kër gi waaye aussi suñu borom jox na ko ba tànk boo xam ne moo ngi koy wéyal ci biir Sénégal mu waxoon d'abord que sàkku ñaan d'abord ci kilifa gi ak ci jotaay bi pour li nga xam ni moom la ko président de la république jox ko mu di ko doxal jëmale ko ci biir formation professionnelle suñu borom yombal ko naal bi di rafetlu tamit suñu teewaay fii ndax lu ko sabab ñaar la lu si njëkk mooy dañoo ñëw ci inauguration centre de formation professionnelle ministère formation professionnelle nag bu ñëwee ci inauguration centre de formation professionnelle woo nañ ko ci li nga xam ni moom la nekk donc dañ ci ànd ak sawar te lool teew fi benn bi ci nekk mooy kóllëre gi nga xam ne am nañ ko ak suñ Cheikh Abdou Akib dañuy sawar lool du ñëw fii ci Touba ci Guy Mbind pour raison yoo xam ni sëñ bi xam na ko waxuma sax ci fàll wàllum administration mais man personnellement dañoo am loo xam ni séq nañ ko di nuyu sëñ am sotu baax nga xam ni bàyyi la ci man ndax euh, waa juróom ak sama maam ay kóllëre lañu woon goo xam ne ba léegi ñoom ñoo ngi koy doxal du nuyu sëñ Aziz Abo bu baax di ko jox wàccwaayam ak mboolem kilifa yi fi teew dañuy sawar lool du ñëw fii ci nguy mbind ndax lu yàgg dëgg la moo tax ba ñu soxna si yabalee dañoo ne ko loolu moom dañ ko def farata ñëw teew délégation yi mënoon a gën a ëpp loolu ndax direction yi fa nekk yëpp la soxna si joxoon ndigal pour ñëw teew pour wax ne lii lu am solo la ci moom ndax mbirum formation professionel sëñ bi junj na ko sànq mooy loo xam ni moom mooy yokk cëslaayu taalibe ci taarix en 1920 en 1918 boobu sëñ baa ngi njaareem ci archive yi ñuy liir ñu bind si ne formation professionnelle à Diourbel dans les métiers agricoles 1918 ba léegi téeméeri at yi romb na donc loolu ba ko sëñ bi di ko mbébét loolu di ko naal di ko def yàgg na bu ñëwee nag ba fii Touba ñu fekk ko fi dañ naan alhamdulilah rabbil alamin sëriñ bi sant yàlla bu baax nag ndax bañ ko xamee sant yàlla bu baax ba nga xamee aussi état moo ngi ciy taxaw waaye nag di génn kontaan nag ba nga xam ne sëñ Cheikh Abdou Hakim ah moom a ki bokkam teg loo xam ne day wallu état ndax lii dafa uutu état naam formation professionnelle am na fi waaye ni dëkk bi yaatoo ak fi àdduna jëm ci mbirum xam-xam ak ci mbirum métier bu ñu gisee sant de formation bu mel nii ñun dañ koy rafet lool ñun ñoo am jaale ñoo leen di jaajëfal ndax yéen nañuy fekk ci li ñuy def donc ñoo ngi leen di gërëm baax di leen sant bu baax. et ci kaw loolu soxna si waxoon na ne service yi nga xam ni yëpp dañoo jëm ci mbirum formation professionnelle dañ jàppale sant bi jàppale ko ci accompagnement ci mbirum. appui pédagogique mooy jumtukaay yi nga xam ni dañ cee soxla pour que xale yi ñu ma leen jàngal métier bi nga xam ni métier bu mucc ayib teew fii tamit suñu teewaay boo xam ni day firndeel ne partenariat bi ñu am ak centre bi ak sëriñ bi naam tàmbali woon na waaye tey dañ koy gën a dëgëral te bu ñu fi jógee incha allah dina am beneen mission bu fi ñëw waxtaan ak ak corps administratif ak pédagogique bi ñu daal dégager benn plan d'action mooy benn téere boo xam dañ koy xaatim ne li des ci at mi lii ak lii ak lii la ñuy def at bii ñëw incha allah aussi dañuy naal def nangam def nangam muy mbirum formation mi mbirum appi technique mi mbirum certification ba xale yi mën a am lijaasa nañ ci teew taay bu am seen sëriñ bi loolu na sa xel dal ci loolu. et ci kaw loolu aussi fii forme nañ fi ñaar fukki xale yoo xam ni jëm na ci mbirum pâtisserie muy certificat professionnel de spécialisation loolu 3FPT def na ko. am na ñeen ñoo xam ne aussi ñoo ngi leen di waajal ci mbirum carrelage loolu aussi man personnellement jigéen ñi fi nekk dinaa la jox une formation de cinquante femmes te incha allah bu ñu jógee ci tabaski gi rek dinaa ñëw fii nga xool ci lu ñu bëgg ñu tàggat leen. lañuy ñuy former peut-être si li jëm ci mbirum javelisation ak eau de javel ak lu jëm ci mbirum saabu ndax set dafa bokk ci diine te rawatina xale yaa donc dinaa la tàggatal juróom fukki jigéen. yoo xam ni dañ leen di former ci li ñuy defalee saabu ak li ñuy defalee eau ndax dañ koy soxla ci biir daara yi. et di remercier aussi le représentant du maire muy Serigne Fallou Serigne Fallou collaboration bi am ministère ak commune de Touba yàgg na yàgg na Serigne Cheikh Abdou Lahad Ka di monsieur le maire taxaw na ci taxaw bu am solo ndax mën na léegi ay at te sa kàddu yi nga wax jëmale ko fii incha allah boobaa bu ñu def mission bi. commune bi day ñëw ànd ak commission éducation ak formation ak ni ko sëriñ bi bëggee di jël nuy aussi di ko teg ci loxo ñu jote ñu ci Cheikh Badawi ndax moom la ñu sëriñ bi boolee loon lépp loo xam dafa jëm ci mbirum administration ak mbir jëm ci mbirum njàngale xam-xam ci biir diine ji sëriñ bi aussi di ñu may may nopp ci loolu ba lii aussi mën nañu wax ne bokk na ci li naaloon lool donc ñoo ngi leen gërëm di leen sant bu baax di fett di suñu kóllëre kóllëre jëmale ko ci yéen ak sunu yéene te incha allah weer yi di ñëw di ngeen xam ne lii ñu xam ne waxoon nañ ko fii suñu borom dina ko def ndax raison yi li ñuy boole kër gi ak li ñu boole euh, dëkk bi ak diggante soxna Mariama Sarr ak euh, waa Touba nga xam ne moom doom la ci kër gi jarbaat la ci kër gi taalibe la ci kër gi loolu laa amoon di ko jox ci kaddu di leen gërëm leen sant waaye am sant ñoo ngi lay ziar bu baax ba nga jotal ñu ziar euh, sëñ Sidi ak mbooleem loo xam ne dafa njabootu sunu maam Abdoulaye Mbacke di leen gërëm di leen sant bu baax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli wa sallim wa barik ala sayyidil awwalin wal axirin mawlaana mahamadun hamdulillah wa ala alihi wa asaabihi wa xulafaihi wa qadimihi wa man hada bi hadihi ila yawmi ddin ah mbokk yi ñoo ngi leen nuyu bu baax ci turu sunu kilifa di kilifa dëkk bi ak Cheikh Mouhamadul Mountakha Bachir di ñaan yàlla yokk fanam may ko wér ci barkeb maamam ji mi fi toogal te liggéey bi mu koy liggéeyal te ñëpp rafetlu ko ñu ànd koog moom tam yàgg lool te mu am ci lu kawe suñu jot li mu bëgg ci ñun ci yiw ak tawféex ak texe mu am ko ñun ñun bëgg ci moom ci lu baax te di ko sàkku ñu am ko teg ca sunu kilifa Baye Ahmadul Mokhtar bi xam ni moo doon kilifa jabooru soxna Amina dégg tey muy Daarul Xuduus ak Guy Mbind di ko ñaanal moom it lii ma ñaanal magam bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa muy fan wu gudd ak wér ba lim yéene ci njaboot gi lépp sa borom may ko mu am ci lu kawe njottom ñu nit ñii njabootam liñ bëgg ci moom ci yiw lépp yàlla may nu ko te bàyyi koog nun di ci tegit kilifa ki nga mooy ci woote jataay bi kilifa kër gi mu dëkk muy kër Cheikh Mouhamadul Amin ca bunt kër ga muy Cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu Cheikh Sidil Mokhtar wuutu samay kilifa ya sama diggante ak moom ñépp di wax kàddu yu xam ne dinañ ci lot ci mu rafet ni war a rafete waaye innamal amalu bin niyaat suñu yéene moo doon wax wax ju rafet ju yiw ju sell ju méngook jataay bi ak bis bi ak liñ fiy def te loolee sëriñ bi moo na ca moom am na ndaw it yu ko ko mënal yu ko koy defal ñii fi toog rekk ku ko ci defoon mu gën baax waaye ci kilifa jataay bi dafa dog ngant jox ma ndigal muy Cheikh Ahmad Bamba Khadim mu sama baay Serigne Moussaïn Baara mooy kilifa jataay bi ay rakkam ak i doomam ñoo fi ne Baye am sa dem na léegi ak mu Cheikh Abdoulaye ak sëriñ Fallilou sëriñ Abdoulaat sëriñ Xaban defe naa wala sëñ Xaban mu sëñ Mouhamadou la moom itam dem na léegi ay kon ñi fi jaar ci ay kilifa yu bokk ci dëkk bi di mbokk Seex Abdul Hakim di ay waajuram ñi maam ci moom ñii di ay magam loolu rek jataayal na ne firndeel ne jataay bi ñor na ay bokkam te li muy woote it lu ñëpp sawara wuyu la képp ku bëgg lu baax te xam it li maamam rëdd bu la woo ci lii di nga wuyu ñu ñëw bari nañ mënuñ leen lim ndax jot moo amut nit ñi toogandoo waaye ñi fi jaar ñépp ku bokkal maam maaram rek dugg nga ci kër gi yaa boobu bas moor li mu fi wax rafet na trop te boroom xam-xam la boroom yitte ju kawel kon daal sëñ bi jataay bi sa mbokkang fi sëñ Abo Madiyaana bu sa maam sëñ Abdoul Aziz Baara ma nga ne toog ñoo ànd moom it ni jotoom sa mbokk sëriñ Baara nga ne ngeen bokk sëñ Moustapha Abdoul Aziz muy yëngu ci lii ngay yëngu di borom daara sa waajur sëñ Moutara Abdoul Khadim di imam ca guy min ma nga nee toog di borom pas-pas ngeen bokk tool bi moom it muy borom daara di sëriñ daara sa mbokkit sëñ Abdoulaat Diop ma nga nee toog moom itam di sa mbokk suñu doomu bàjjan moom itam di borom pas-pas bàyyi itam yëpp délégation maire dem na sànq soxna Mariam Sarr ministre du méngoo formation e nangam di sama wëllëre ay ay ay njabootam ñëw nañ ah moom de imma reex ama taw lu mu ci mën doon yitteem lay dox rek te jaamu yàlla la ñuy jaamu yàlla fu mu ñu ñu fu mu ñu tënkee mëntu dem ñu yamale ko fa waaye day dox yitteem ñu dox ñu yitte rek yàlla ngëpp yëpp di ko doxal nu ko neex te taw moom defe naa waxtoom mhm. kon suñ bee nga doon ñaanul kon daal ci tënk damay wax toujours ca soo woog fu may waxe doo ci sawar ndax boo nee gàttalal def nga mësa ba séddale wax daa jafe torop séddale wax séddale xaalis ak gënu yomb ndax dafa jafeñ ndax dañ koy xawa sàggane ci ñi jàngut ñu mel na man waaye Alxuraan ni mu yaatoo li muy bare bari ay wax la da du wax comme wax yi nag ndax waxi buur ka bind moo tax mu foor lool waaye sëriñ bi samp dëkk bii rëdd yoon wi teg ci yoon wi bañ mën a taxawet jataayu xam-xam ak diine bi li mu wax ak li bind buñ ko nattoon xam ne wax lu foor la xanaa waxum safaan moo baax xasida yi ay wax la ndax dañ ne communication bi gën kii sax mooy bind ndax wa maa maa xof fi sa taaraw maa ko te wax xar kon wax am na solo li ñuy wax fii nag benn solo kot su lañ koy wutali tënk ko fa muy sant sunu doom ji waral jataay bi ndax benn lu nu waroon bokk na ci ñu nu ko wàcceel yàlla dana woon na kuréeli julli li na ci am ñu dem bàyyi seeni kër ak seeni bokk seen lépp dem wuti xam-xam bu ñu xamee bu ñëwee nag di xamal ña ca des muy fardu kifaaya moom nag amoon na tawfeex ko dem jàngi ba mu ñëwee yin nag yàlla may ko yittee ñame coono yi mu jàngoon mu àppali ko nag ko yàlla digaloon loolu mooy waral daara jii waaye laa xarwa ndax sëñ baara bi maa ngi koy wax sëñ Moustapha baayam dañ ne doom doom ni ko tur bi tudde wolof tudde ci tekki mooy du moom mana sa ku ne sa doom nga kon sëñ Moustapha ba muy ubbi daaram ji fii taala di yanu boole indi ngir ñu fi jàngale alxuraan ñu fekke ko tey bu ñëwoon fekk daara yi sëñ Abdul Hakim bii ñii am seen lijaasa ñii mokkal alxuraan dina xam ne yàlla far na ko ca lam noonu def mu ñëwoon ca maam baara daaram bee ña fa génne ña fa jànge ak lem ca amee yitte dina xam ne yàlla far na ko loolu mooy lu yàlla tax te yàlla taxawu ko day gën a jóg rek donte ko ko defoon gisal duñ ko saayir waaye caaxaani lu mu rëy rey day màmb rek jàngkat yi xam ngeen lool kon sëñ Abdou Hakim bokk yëpp rawatina sëñ Moustapha mi nekk sa kër buntu kër maam nii ñu bàyyi suñu yitte ndax sama benn xarit day wax na ñu ñàkk jom sax amatuñ jot waxantuma laa ku bëgg a am jom ak fulla kon sa bokk yii rawatina sa baay bii sëñ Ahmad Bam Moussaïn jóge ca Cilmaxa ak sa maam yii fi jaar ak ñëpp loolu soññ la ci nga yëg ne li nga nekk sa bokk yëpp bëgg nañ ci kontaan nañ ci te ñu ngi ci ànd ak jow ci nañ ko man ñi ci mënul jàpp ci saayir ñi ngi lay ñaanal yàlla ndax askan ku ca bokk di nga def ñaar wala nga doon ba ca diggante ba yanu mas ulee fas yéene fas yéene yokk mooy lii ngay def ndax sa yoo toolu maam yow moo doon xam ak xamle jub ak juble kon boo ci sóoboo di ja def la nga mën loo mënut ñëpp xam nañ loolu metti la waaye nag keneen ka mooy ti xam na li maamam defaroon moom ak si lay def sëñ Tuubaa fàggu ba kenn mënta yàq dara ba mu jeex waaye am ñoo xam ne moom axe bi la def moom defaruñ jubaluñ waaye dañuy yàq moom ñoo ñoo tax ñu cam cam mbàkkeet nangam am ku leen mën a wax dara ñooñ bokkuñ ci diggante bi nag mooy Basiiru Jaxate moom sigira la yàqut waaye defaruñ ñu ci boppam kon sëñ Muntaxa ni mu bëgg ci yow ndax ku gis ni mu foggee xam-xam gis ni ci def it ci ba mu ñëwee ba tey songu université bi def ci limam lépp ak yitteem jépp ne du am bu mu laal suuf murit yi am ñoom yëpp topp ci kon boo wootee lii yow fekk na la ca yoon wa ndax defe naa du bii laa fi njëkk a ñëw te at mu ne nga def ko te xam nañ li ci éducation yar dafa seer ñaar ñoo gën a seer Sénégal rek lañ ko xamewul sëñ Xaadim mi dëkk Amérique day dugg xam na ne ñaar a gën a seer ci àdduna yor xareeg yor màggat xale kenn mënul xam ay fereem dafa bari torop torop torop moo moo tax li ngeen di tudde euh, ujra wala ñenn ñi barkelu ku xam daara xam ne doyut waaye seen barke maam mi ngeen di liggéeyal te moom yàlla may ko saayir may ko baatin ak sutura moo leen taxaw ba li ngeen di bëgg leen ko am kon ñu ngi lay ñaanal ci barkeb Cheikh Moustapha ak sa baay ya nekk yu mind ak sa mag ya fa nekk ak sa bokk yëpp song bii yàlla na doon doon ay daaray daaray daara bara ci àdduna bi ndax sëñ Touba daj na fépp fu wooteeb sëñ Touba àgg rek yàlla na fi sa daara ji àgg ñi fi génne it ci barkeb sëriñ bi te yaakaar nañ ko yàlla na fi seen lijaasa yi ak liñ fi xame barkeel bañ tasaare ko ndax loolu rek mooy yitey sëñ bi dafa baaxoon yàlla jox ko baax moo koy tasaare jaamu yàlla yi ba tey yéen ñi ko wuutu nekk ay sëtam te tegu ci yoon wax mission boobu rek mooy seen mission mooy jub ak jubale te nit ku ko bëgg jubal danga koy xamal xam mooy jiitu jaamu yàlla yonente bi alayhi salaatu wasalaam wala ña ko jiitu yoon sax yàlla xam la si nga wax soog a wax ne jaamu faalam bi anna allah laa ilaha illa ana da xam ne yàllaa fi fi yàllaa nga fi yàllaa nekk nga soog a koo mën a xam nuñ koy jaamoo ak mooy ka kon ñàkk xam mooy li gën a doy waar ciw waaye nag niñ gisee nga taxaw ci def ci sa te tool ci ndaw def sa yitte yëpp loolu xam nañ ne sa maam dina la jàppale ndax ndegam ñi nekkut ci liñ war a nekk moom la liggéey ba seen sutura du xawweeku rawatina ñi ne ci yoon wi mu bëggoon te jàng ak jàngale ak yare rek moo doon mbireem moo taxoon mu sañ dëkk bii sa maam ji di sëñ Abdoul Aziz Baara ak sa turandoo sëñ Abdoul Hakim ñoom ñëppit ci loolu lañ newoon sa waajur Cheikh Moustapha Abdoul Aziz it suñ Cheikh Maram da ko daan toon ne ko ay direct aéroport Dakar direct mbaam jigaan <laughs> suñu saa rek moo koy def te booba it fonk tool yaag bëgg ña fa nekk la muy def ñoom dara tardé ak yitte rek tax kon boo jógee tegu ca yoon woowe mos naa koo laaj ne ko ndax daraan bind kaamil weeru koor bu ne loolu xam naa di ngeen ko xam wala du xam bu ko bindee ba bi mu ba fi sama turandoo jógee ma laaj ko ne ko sëñ bi kaamil bi nga daan bind du ma wóor nag ndax da ko daan def ci biir koor waaye keer gu ne daal daan naa kaamil ay at yu bëree bëri ma xam waaye moo ko laajee ne ko ndax kaamil ba di nga ko mën a booleeg yan beeg léegi mu ne a ah, du ma ko defee noonu de waaye maa nga ci rek foofu laaj ci mën a yem waxi biir la waaye kon sëñ Moussa ku mënoon alxuraan la ku ko fonkoon la ku ko mënul bind kon nag bu bàyyee ngay leeram di nawleem ndax bàyyi nawle la nga na ca def gën a mënoon dañ lay nawle te di la ñaanal di ñaanal nag rawatina say collaborateurs ñi lay jàppale ci njàng mi ak njàngale yi muy ustaas yi ak asaas yi ak itam ñi yor xale yi ñooñu am nañ mérite bu mag ndax lu metti lañu lu metti la ndax xam naa tuuti ku ànd ak yow ci pas-pas ak bëgg te xam ne fayoog yàlla ji yonte yàlla yónni woon yëpp dañ doon wax ne eh ñun kat sunu fay ñang xaar ci ku ñëw ci daaray Sëñ Abdou Hakim di fa xaaroo fayoog yàlla ni mu koy xaaree di dem ndax jàngale daa metti bas da nga koy jox sa lépp kon maa ngi day santal ci turu sëñ Moustapha ak turu sëñ Sidi Mokhtar eh, astaghfirullah sëñ Moustapha Sidi Mokhtar ak sëriñ Mountakha mii jiitu yoon wi ci turu sëñ Xaadim mii ñi lay jàppale ñëpp rawatina waajuru ndongo yi nga xam ne ñoom itam ñu ngi fi ni seen i dongo te di leen soññi nag ñu jàpp ci ndax am na sama benn baay dafa joxoon benn mbokkam doom ba yàgg mu xam ne kilifaam la mu dem jël ko mu ko jëlee ne kilifa ga ah man daal damaa defe ne seet defe ne sama xel dalatut mu ne ko ndax mu ne ko damaa defe ne maa ngi lay liggéeyloo te liggéey bi gën a mett laa lay liggéeyloo ndax ci xale moo tax mu bëgg laa féete te di ko def sa diggal kon lu mett la kon sëriñ daara ñu ngi leen sant ci turu sëñ Moustapha ñun ñi di bokkam ñu ngi leen sant ñi garde xale yeeg ñi leen di yool ak ñëpp ñu ngi leen sant ndax liggéey bu diis la di xam ne li ngeen defal Sëriñ Abdou seen bopp ngeen ko defal waaye koo xam ne boo ko tooñoon ay bokkam jóg boo ko terleet si ay bokkam jóg kon suñ xool seet na ci yéen yàlla yàlla barkeel leen di ñaan ci fan yii ñu jub muy fukki fan yi gën ci at mi yàlla defal nu ci barke ak tawfiix ak najaax ba daara ji ak ñun ñi fi teew ñu fekkawaat ko tey ñu yokk ni daara ji yokk ko ci barkeb Alxuraan seeb du lu dugg ci wax ji sama yéene la waaye yéene woon naa mu gën a rafet di santal say invité ñi fi ñëw ñëpp mënu ma leen lim waaye ku fi dugg ngir yàlla ak sëñ bi ak daara ak Alxuraan rek na xam ne yàlla moo ne woon innaa nahnu nazzalna zikra wa innaa lahu la haafisuuna yàlla nañ ca dugg ñun ñëpp kullu aamin wa antum bi alfi alfi xayr wa salaamu aleykum wa rahmatullaahi